nous nag dañ fi Taïwan pour un euh, agrément de économiques sociales sociale et solidaire agrément est un mandat rek la buy wane ne que nous, ci li et yëngu état am le leen ci reconnaître ndax Sénégal tamit dafa jël une loi bu ñu la loi de l'encadrement de l'économie sociale et solidaire depuis 2021 Nous avons fait nga xam qui ñi ngi l'économie sociale et solidaire Nous avons accès à des financements, à des euh, subventions ci tamit am régime dérogatoire maanaam ci l'impôt bi ak yeneen ñu mën leen wàññil lu bëri ba nga xam ne ci li ñuy liggéey dinañ ci mën gis seen bopp mais tamit mu am leneen lu fi bees lu fi bees mooy ne que Sénégal dafa adopté code des marchés bu bees ci code des marchés boobu ñu am ci ay pàcc yoo xam ne dañ ne ñi ngi ko jagleel ñii di liggéey ci économie sociale et solidaire te ñooñu nag pour ñu ràññee leen il faut ñu am mandarga bu ñu leen jox moo tax tey ñu jox leen agrément yooyu agrément yi jox nañ ko ci ñoo xam ne ñu ngi ci société de coopérative di yëngu ci mbàllum li ñuy woowee économie circulaire mooy les acteurs de mbëbës ñeneen ñi c'est des sociétés de coopératives qui sont nekk ci mbay bi ak sàmm bi ñoo ñëpp tey ay acteurs économie sociale et solidaire dañ ñu teg seen ay mandarga ñoo xam ne ñu ngi koy tey nañ ko commencé mais ñu ngi koy ubbi ci ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci yëngu comité bi mettre nañ ko en place tey nag tàmbali bi rek la woon lu ñuy woowee euh, remise symbolique te nag remise symbolique boobu tey daf ci am importance ndax ñëpp xam nañ ne Sénégal le premier mai bii ñu jëm ba le 6 mai day accueillir forum mondial des acteurs de l' économie sociale et solidaire te Sénégal nag ñu ràññee ko bu baax ci économie sociale et solidaire ci àddina bi ndax loi bu mu jël ndax initiative yu mu jël ndax tamit bëgg nañ septembre sax Nations Unies reconnaître économie sociale et solidaire te Sénégal mi ngi ciy jouer rôle bu am maanaa nekk ci ñi ko jiite di jiite résolution boobu. agrément bi nag ubbil nañ ko ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci économie sociale et xam ne tamit ñun suñu loi dafa adapté ak suñu suñu contexte bi ñu nekk moy ñi nga xamné ñi ngi yëngu ci li ñuy woowee secteur informel dañuy bëgg réussir sen transition moo nag ñu jóge ci secteur informel bi ñëw ci secteur formel bi à travers l'économie sociale et solidaire te loolu bu amé ak agrément bi dinañ tax sax ñom ñu am li ñuy woowee protection sociale ndax agrément boobu buñu leen reconnaître nañ mën am accès ci li nga xamné ne nañu woowee pension de retraite ci li nga xam ne nañuy woowee une protection sociale ba bu ñu feebaree ñu mën faju aaraale ci seen njaboot seen dadoor mën ci faju su fekkee ne dañu teew c'est parce que ministère bi daf ñu invité ñu bokk ci daje bi ci ginnaaw projet Promefi projet bi mooy benn projet BIT boo xam ne dafay lënkaloo ak euh, coopération italienne dafa jàppale communauté yi pour ñu créer ay coopératives ak renforcer sen euh, structuration bi manam ñu gëna dëgg euh gëna mën euh, japp sen membres yi euh pour ñu euh, sen sen liggéey ak sen taxaway gëna dëgg wa jox nañ ko ñetti coopérative tay yo xamé moy coopérative euh bu Mbëbës bi euh ak coopérative Taïba Ndiaye ak benen bi nga xamé ben réseau la donc ñette yooyu ñoo am agrément te agrément bi na leen ubbi lu bëre bëre bëre moo tax ma bëgg a dellu di remercier euh, ministère bi ak ku ko njiit madame le ministre ak secrétaire général bi euh, taxaw suñu wet ak directeur de cabinet bi ñoom ñëpp dama leen di remercier ci jàppale bu ñu jàppale coopérative yi nga xam encadré par le BIT